xaaru ndaje yi ko amal weer bu nekk parce que lu am am solo la parce que day gën renforcer suñu bëgg-bëgg ci euh, xeex alam bi ak euh, suñu dëkkuwaay parce que boo xoolee sax lu ñuy def dafa lu jaadu te yoon daf may dafa jaadu ndax ci constitution 2016 ci constitution euh, du Sénégal révisée en 2016 dafa am disposition bi nga xam l'environnement mu ne ndaw bu nekk wala nit ku nekk nga xam ne moo ngi dëkk ci réew bi war na mën a fexe ba environnement am mu xeex ko ba jéem ko taaral ba lépp jaraw ko ba mu ba mu jaraw ko lépp noppiwaat ba ñeekuwaat ñëw ci charte bi nga xamante ni moo tëgg maanaam collectivité locale yi muy article 3 muy article 6 ak 7 bi nga xam ne mooy ravage participation citoyenne mooy ñooñu aussi am nañu wàll bu rëy ci defar seen gox kon je pense que loolu moo ñu fi boole ñun ñëpp

parce que deuk kenn du la ko defaral yow ya ko wara a sa bop donc nak buñu gissé une association euh, nekk fii Ouest Foire décider def reboisement def nettoiement sensibiliser nit ñi ci ci walu set ak setal je pense que ne lolu en tant que direction générale dañu le wara ñëw accompagner leen en terme de logistique en terme de de moyens pour ñeu jàppale pour que lolu nga xamante ne moom la muy setal deuk bi ñu mun ko def faut dafa bokk ci bëgg-bëgg son excellence le président Macky Sall parce que instruction yooyu le ministre en charge de l'urbanisme du logement et du cadre de vie avec la direction générale donc duñ mun lu lu jow jàppale leen je pense que nous ñoom yàgg nañ ko def waaw loolu la pour population sénégalaise bi xam ne jeunes yi am nañ solo ci cadre de vie ont nañ solo ci 7 set et je pense que c'est un exemple la dañ ko wara jël ci wa euh Ouest Foire que Sénégal yëpp approprié lolu jàppalante ngir ñu mëna sétal suñu suñu dëkkuwaay. yalla dafa def ñu dëkk fi ñun ñoo fi dëkk donc euh kenn waruñu see jiitu kenn waruñoo jitu ci défar gox bi mais nak soxla nañ ay soutien parce que à ñun nous seuls mënu dem et la nature a horreur du vide amnañ nak ay partenaires extraordinaires ñu melni cadre de vie yu melni wa euh, club environnement bu bu bu Yoff lu mel ni association mouvement Setal Ouest Foire nga xam ne seen coordonnateur mi ngi nii Sidi nekk un jeune extrêmement dynamique avec une équipe extrêmement dynamique qui font un excellent travail ñun dañu ñëw rek pour nekk seen wet jàppale leen xamal leen leen kilifa Ouest yi ñu ngi fi taxaw pour may leen doole pour que ñu mën a atteindre objectif bi nga xam moom la ñu fixé. dañoo nekk si benn dëkk boo xamante ne moom jeunes yi. Euh,

tamit di gën a euh, insister si maanaam euh, éducation environnementale bi parce que loolu noonu mooy lépp mais tamit ñu koy gën a euh, boole ak maanaam di si dugal xale yi parce que tey jii ni xale yi alaakulli yàlla ñoom ñooy ñëwe ji jayra ji tey jii nii di nga xamante ne ñun ñoo ko yor yëpp donc daal dañuy def rek lu doon nag di leen ñaaxaat pour ñu gën a insister si wàllum sensibilisation ak si côté aussi mobilisation tamit di ñaaxaat tamit autorité yi pour que ñuy ñëw di teewee genre genre genre yi parce que tey jii nii euh, ñun dañ dañoo tàmm que ne euh, Yoff par exemple dañoo am maire euh, am na ay responsable yu fi nekk tey jii mais soo woote woon sabar wala leneen ñoom ñoo fay njëkk a teew mais bu dee cadre defar doo gis benn nit si ñoom soo bindee demande doo leen gis donc yooyu noonu tamit dafa doon ay ay. ay paramètres yoo xamante ne tey jii nii ñoom dañ ñoom ñoo ko war a jël en charge pour que tey jii nii ñooy gën a encourager jeunes yi aussi li ñuy def te bañ tamit di leen contrer. waaw lu may wax population yi mooy am na habitude yi nga xamante ni daan nañ ko def mooy comme lekk ci mbedd sandi wala naan café sandi lekk banaana sandi poobe ci mbedd bi je pense que yooyu dañ ko war a dépasser maanaam fu mu toll nii ñëpp a ngi def manam jongante boo demee yeneen quartier yi ñoo ngi def jongante pour xol ku gëna rafet la koñ dafa seeni pavé dafa seeni carte de vie saxal ay garab donc je pense que population yi rawatina sama population waaye population sénégalaise de manière générale je pense que am na habitude yi nga xam ne war nañ ko mëna a dépasser té ñu euh, xol li nga xamé dal mo moy jëmele kanam parce que li jaamu yàlla la parce que le fait que nga dafar sa gox rek bale ko taaral ko saxal ay garab di ko dundal ba nit ñi ba muy màgg ba nit ñi mën a toog ci ronu garab yi je pense que loolu amul jaamu yàlla bu gën a mag loolu.